salaamaaleykum. waaleykum salaam soxna si. na ngeen def. sant yàlla bu wér. man de yàlla xam na ni c'est la première fois may woote ci émission bi. Mhm. te li tax sax ba ma woote mooy. Mhm. toogaay bi ngeen toogee nii yéen ñett ñii. man de bu man. Mhm. émission bi chaque jour buy amati yéen ñett ngeen toogaan ndax <laughs> feesal na waxal déwén feesal boo xamante ni waxal déwén <laughs> yàlla xam na ni yàlla na leen yàlla may lépp li ngeen bëgg ci kër àddina amiin amiin aw na lenn lenn lenn wax dëgg yàlla aw na lu may wax ndeysaan ndax yéen ñett yëpp ku ci nekk mm. am na lu may yëg ci yow dëgg la yéen ñett yëpp te yàlla xam fu mu nekk nii gis ku nekk koo xamante ne nii am maa ngi yëg ci yow Hmm. yàlla def tey jii. Hmm. ci jour anniversaire bi mu dajaloo leen. Hmm. man aw ma lu may wax wax dëgg yàlla sama xol fees na. ndeysaan ndeysaan ndeysaan jërëjëf xam ngeen ni lii war ngeen ko koo may de chaque jour ngeen jaar ci kër gi xam ngeen ni lii lii lii man demandé wu ma ko ñoom ñoo ko demandé. Ah parce que yaa ngi ma doon fem mu naan maan bàyyil bu ñu waxee nga ne ma ñëwal ci kër gi. nit ñee ko demandé seen bopp du man parce que yërëm nañ ma sax dèjà ci wax ji yërëm nañ ma xëy na ci colu solo bis bu yàlla sàkk même bu dee yërëb ñeenti téeméer la bis bu set nga di ko sol itam ndeysaan Eva sax mi ngi jooy <laughs> ndeysaan moom mhm. moom xol bi dafa oyof mhm. te gis nga lii rek moo am solo mhm. lii dafay indi rek euh, Eva gën a jàppantewaat gën a delloowaat xel yi kenn ku ci nekk sa morom nga jàppe ko sa bopp mhm. parce que moomatuñu suñu bopp mhm. Mhm. waaye tam ak fu ci waay mën a nekk itam nga xam ne lii dafa nekk jour boo xamante ni dafay marqué man day en tout cas marqué na ma xëy na euh, dama tul léegi wala <laughs> bët yi mayetuma may jooy léegi mais <laughs> euh, wallahi azim sama xol sedd na gërëm naa leen sant ne leen te quel que soit alpha duma leen fàtte benn yoon ci teg euh, boo ma nee loo ciy teg du ma xam lu ma ciy teg mhm. parce que xol yëpp a tooy mhm. caam xol yëpp a tooy ndeysaan euh, dëgg la naam plateau bi rafet na mhm. ni ko askan wi gisee mu rafet ñun noonu lañ ko bëgg parce que tamit lu ñun luy bëggal askan wi ci la ñuy bëgg di dox dëgg la ci la ñuy bëgg di wax parce waxuma la muy kër gi mais leneen lu mu mënti doon. Mhm. man lu ma yëkkati. Mhm. Eva mi dikk na joxe ci contribution dëgg la daba est-ce que buñ ko defee woon nii du baax. Mhm. te ngaa jéem a seet lii boo dolli ci lii. dëgg la yow de même nga def loolu. dëgg la kër gi bés bi yàlla sàkk ñu ne la mbayang. te ngaa yokk bi élément. dëgg la dëgg la waxtaan la wallaahi ba ci coow li coow li xam nga ba ci coow li coow li. ku ci nekk di ci joxe sa contribution. dëgg la dëgg la ku ci nekk di ci joxe sa avis. sa xalaat caam waaye li ci kër gi kenn gënu la koo xam ndeysaan wallaahi mbay dëgg la naam nee nga remplacé woon naa mhm. la mais bés bu yàlla sàkk dama ko daan wax fii mhm. saa yu ma dikkee ni leen mhm. damay jéem def ni mbayang daanaa koy dégg mais mënuma tolloog mbayang ndeysaan mënuma doon mbayang nga baax rek mbayang mënu la doon daba sumaare daba sumaare mënu doon mbayang xam nga lu tax eh, caam da nga ci da nga ci dékk lu bëri mbayang dara ump la di nga tëdd deux heures du matin ñu woo la te ci émission yëpp la nag bii nga ci mujj deux heures du matin. big caam nga tëdd ak sa borom kër. Mhm. nit ne la kar deux heures du matin. Mhm. balaa ngay justifier balaa ngay leeral balaa ngay wax ba sa xolu borom kër di wàcc. Mhm. fekk na jaar nga ci tolof tolof yu bëri caam. dëgg la mbirum kër gi moo metti parce que ku ci nekk yaakaar na ni fi la soxlaam di fajoo. sag googu la yàlla jox ci kër gi. yàlla bu mu sàjjee. amiin yaakaar gi ci jaam am bay jaar ci yow. yàlla na ko yàlla matale. amiin amiin amiin yàlla nañu yàlla ubbi buntu xéewal yëpp ci ñu jël ki ci ligne bi dellu si waat ñu jël ki ci